allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal àq nga xamante ni yaa ngi bàyyi xel seen site internet bi di 24 actu comme euh, nag ñu ñoo leen ko diwoon muy seen émission gëstu diina bi tey nag nekk suñu premier numéro euh, ci gëstu diina bi suñu gan tey nag yaakaar naa ñu bëri ràññee nañ ko mu nekk Serigne Cheikh Sall ñu gën koo xam ci imam Sall mu nekk tamit collectif des imams di yëngu tamit lépp lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale ak xeex lépp loo xamante ni yëm na ci wàllu lislaam tey nag suñu premier numéro ci wàllu gëstu diina ji thème bi mooy lan mooy cosaanu jàngale daaray alquran bu njëkk ak bu njëkk naka lañ daan jàngee ak léegi lan mooy changement bi loolu moo nekk suñu thème tey xam naa ni bàyyi suñu ganu tey Serigne Cheikh Sall mu nuyoo Serigne Cheikh maa ngi lay nuyu. Euh, soxna Astou maa ngi lay fay alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa ashabihi sawir ridwan bu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal Serigne Mouhamadul Muntaxa yàlla may ko kattan ak wér ba yéeneen ci lislaam ak ak jàmm mhm. ñi ngi lay nuyu Soxna Astou Sylla di nuyu site bi di 24 actu ak mboolem ñi nga xam ni mhm. ñu ngi liggéey ci bërëb bi di ñaan yàlla. bërëb bi yàlla def ci barke. Mhm. ak nattaangeeg taranga. Mhm. ba mu bokk ci site ëpp doole ci biir Sénégal. Euh, jërëjëf ko euh, Cheikh Sall ci nuyoo bu am solo boobu. Euh, te nag nekk suñu premier numéro comme ni ko waxee woon sànq ci li nga xamante ni moo di gëstu diine ji gëstu diine ji nag nekk loo xamante ni mën nañu ne ëmb na lu baree baree bari ci wàllu diine suñu tamu tey nag nekk lan mooy cosaanu njàngaleem alxuraan bu njëkk ak daara bu njëkk ak dongo yi naka lañ leen kaa dundee euh, lan moo nekk suñu première question nekk thème bi tey euh, lan nga ciy tontu. Euh, am thème boo am solo la. Mm-hmm. ndax boo nee gëstu diine mais loolu dana la permettre nga mën dugg ci daara yi. Mm-hmm. ndax boo xoolee fii dëkk bi daara yi sëru daara yi ñoo gën a néew ci ñuy wax ci ay rajo ki télé. toujours rek ñu ngi ci mbaar mi di jàngale euh, dana la permettre nga mën dugg itam ci école arabe yi nekk ci dëkk bi mhm. euh, dana tax nga gën a mën a génn dem fekk dëkk bi am na ay soxna yu baax yu fi nekk jàng alxuraan mokkal mais nekkuñ di di def ay sorties di génn di wax fenn mhm. dañoo nekk ay dongay daara mhm. am am am am ñoo xam ne itam jàng nañu alxuraan ba mokkal génn euh, benn ña ngay jàngale mbaa ñu doonul sëriñ toog fa ñu toog rarement ñuy ñuy génn di di di di wax. Mhm. lenn lu jëm ci wàllu média ak yooyu. Mhm. loolu nag tax nga fekk leen fa ñu nekk euh, ñoom ñu génnee li nekk ci ñoom. Mhm. ndax ñu yor xam-xam dëgg ñu ngi ko yor toog di ko jàngale nekkuñ ci coow li. Euh, daara dafa nekk li nga xam ne lu am solo la ndax moom mooy euh, jël lislaam fi nga xam ne fi nga fekkoon dono bi nga jël ko. yóbbu ko foo xam ne ëllëg say doom ak say sëf bi ñu daara nag buñ ko waxee képp kuy yeewoo ci biir réew mi baa ci àddina nga nekk ab chef religieux wala sëriñ wala imam wala nit ku ñëpp topp te ci lislaam a tax ñu lay topp yow daara moo la meññi daara moo la sos daara moo la génnee looloo tax soo tuddee daara rek dangay ngay mën a wax ne fu sëriñ nekk rek jàppal ne foofu moo nekkoon quartier foofu moo nekkoon Dakar Bango bi nga xam ne fa lañ la jàngale fa lañ la formé su ko defee nag boo ko bëggee delluwaat nag ca cosaanul démb ak tay euh, dafa nekk lu am solo kon wuruñ koo fàtte war nañ leen jàppale war nañ leen dimbale war nañ leen bàyyi xel war nañ xam ne tay lu fi baax lu fi baax ci réew mi daaraa ko génnee lu fi daara génnewul rek fa nga ca fekk ay ay mbuxum ak ay lëndëm lëndëm daal ak ay ay jiixi jaaxaak sikki sàkk koo fi dégg nag muy woote mbaax ci yàlla ak yónnente naan damay fanaani aras ci daara la génnee kon kooku euh, nañ xam ne daara luy caaxaan mm-hmm. euh, cosaan la nag dafa yaatu daa nekk tey buñ ko bëggoon waxtaanee ay ay ay jataay yu yaatu lay doon parce que olof dafay wax naan la mu saf ki ko mu ko xam boo toogee di laaj ku jugee ci daara génnee ci daara bu la bëggee nettali moom fi mu jaar ci daara ak mettit ga ak njariñ ba fa nekk loolu xajul ci benn bis di ko waxtaanee ko ay conférence yi conférence yu jeex la waaye nag li olof naan liy duuf ci nag bi xajul ci cin bi dañ ciy mos tuuti rek. waaw dëgguma la foofu sax mais est-ce que yi dëgg-dëgg yi nga xamante ni moo amoon ci daara yi bu njëkk dongo yi daan ko dund sëriñ daara yi daal leen ko teg ñuy toog di ko muñ. seeni parents tamit di leen jàppale di xam ne ñii sàkku xam-xam moo tax ñu yóbbu leen fa est ce que loolu mi ngi am ba léegi est ce que sëriñ daara yi amoon bu njëkk ñu ngi am ba léegi wala ndax dongo yi amoon bu njëkk ñu ngi am ba léegi lan mooy seen différence. waaw euh, dongo yi amoon ba ah, ba léegi ñu ngi am utlubul ilma wala bi siin la yonent bi alayhi salaam waxoon sàkku di leen xam-xam. loolu mhm. da génn dem lu mu gën a sori ci àll bi baax na ah xam-xam dana lu ne lépp mooy xam àddina nga am xam-xam te yoroo benn dërëm moo gën nga yor àddina li ci biiram te amoo xam-xam xam-xam mooy lépp boo ko yoree ñàkkoo dara ci la li yàlla def lépp mhm. euh, daaree woon bu njëkk bi nga am euh, tey la alxuraan bi wax wa maa kaana al-mu'minuuna liyanfiruu kaaffatan falawlaa nafara mhm. min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahuu fi ddiin mhm. yàlla wax ci alxuraan ne fokk réew mi wala àddina am ñoo xam ne dañuy jóg dem ci daara jàngi alxuraan mhm. suñu jàngi alxuraan ba mokkal ko jàng fa xam-xam ñibbisi nag mhm. ñu ñoo ñëw farewoo nag yeneen i daara yeeg école yi di jàngal nit ñi lislaam mhm. njàngale lislaam mooy jàngale alxuraan jàngal nit ñi xam-xam jàngal nit ñi seen diine jàngal nit ñi na ngay nekk ci askan wi na ngay nekk ci société bi na ngay liggéeyee ak na ngay préparer sa ëllëg loola mi ngi am ba léegi waaye nag dafa am lu ñu tuddee modernisation ndax ku ne xam ne ne euh, ñun nañu doon jàngee ca daara ya ak jaaro yi léegi du benn ndax euh, loolu jamono mooy dox te bu jamono sotti ko da ngay ànd ak doxinu jamono sinon soo ko deful su boobaa ak tardement dina am wala dina métti. mais est-ce que xam bi nga xamante ni mën naa ne ñu bëri amoon nañ ko ci jamono yu njëkk ya ñu ngi koy am léegi nga déjà boo xoolee euh, jamono ji di nga xool am na benn misaal bi ma ciy jox rek ñu am koo xamante ni da nga sàkku ji xam-xam war gilee moom xaw ma fasam. dem dem di sàkku ji xam-xam am téere boo xam ne daf koy wër dem ba fekk kooku mu jël benn lekket boo xamante nii daf ciy jox benn bay xaw ma pour mu lekk mu dem fekk lekket boobu def dara nee na mu koy xamal ne ko lii nga xamante ni yow yaa ngi koy naxee gi te amul dara ndax alof dafay faral di wax naan lekkati kese naxuti bay kon yow jàpp naa ne man li may sàkk waruma ko amee fii te boo xoolee léegi changement am na ci côté ndax yu réseaux sociaux yeeg ak jumtukaay yi nga xamante ne nit ñi mën nañ fee gëstoo pour jàng fi dëgg-dëgg am na mais est-ce que loolu waralul changement yi ci xam yi nga xamante ni amoon nañ ko bu njëkk hmm. waaw xam nga ñu bëri léegi dañoo bëgg jàpp ni xam-xam dañ koy for waaye kenn du ko for alxuraan kenn mënu ko for leneen lu dul loolu mën nga ko fortaat tey hmm. mën ngaa xëy fi ñuy di làkk tubaab di ko bind te doo dugg waaye kaamil bi moom kenn du ko tari te xewoo dee ci daara ji euh, cosaan nag pour ñu dellu si ci gis nga nit mhm. bu amee ay trois ans et demi trois ans trois ans et demi nga dugal ko ci daara bi mu jàng mhm. bu dee njàngale mi baax na bu fa defee cinq ans six ans mun naa mun ko alxuraan bu ñu waxee nag lan mooy lan mooy lan mooy daara ji luy luy solo si ak lu ki muy génne ëllëg mooy kan mhm. daara bi nga defee quatre ans cinq ans six ans sept ans max minimum parce que xel yi yemuñu ba baax nga am dix ans nga mokkal kaamil bi tàmbalee ko bàqara ba mu ne jëri dawa naa si man koo tari beqe ko beqe mooy ngay bind ci àll ko robon jour bu robo bi jeexee da nga koy def at ba ñaari at ñu ne waa ji mokkal na alxuraan beqe na ba pare sëriñ daara bi tàmbale bis bu ko neex ni leen commencé tey ñu bind kaamil booy bind kaamil chaque jour nisfu bu ngay bind bàqara ba nisfu bi loo bind isib bi nu nga ko defee bindu kaamil lay diire at ndax nisfu bi lay jox mm-hmm. su jeexee nag sëriñ daara bi topp li nga xam ne mooy kaamil su ko toppee xam ni sa àlli woo wow na tari kaamil bi ba mu wow koŋ fii ba ay ba ma ngay faatu boo sàgganu dootoo ko fàtte nga daal di dem nag commencé jàng xam-xam mm. ñu tàmbalee la ko ci téere yu ndaw yi loolu ñu tuddee téere yu kon yi nga continuer ci loolu continuer ci loolu ba ak téere yu mag yi xalil awal ak saani foofu la ñuy yem bu dee ci réew mi la ci wàllu fiqh yi ñuy tuddee jurisprudence mm. nga dem ci wàllu grammaire nga dem ci alfiyatu ibn nga ñëw ci wàllu li nga xam ne mooy luxa ay ay maqamatul aririya al euh, soxraaw euh, euh, soxraawu jahiliya nga jàng balaaxa jàng mantiq xarub xeet yooyu nan la ñuy tëgg yi nga xam ne soo génnee ci daara bi yow da ngay mën a taalif ay téere ay loolu ñu tudd ay mantiq xarub bay bayaan ak usoolu fiq nga xam ne personnel yow yow asu soxna asu tey bu ne la taalifal ma téere fiq nga nga taalif ko diine ji lu ci waaye dugal bokku ci nga ne bokku ci lu ci waaye bëgg a génnee nga ne ci la bokk kaamil bu lakkee nga kii ko loolu ñu tuddee daara mu am solo loola nag mën nga doon am bu njëkk waaye léegi dafa néew mais dañoo gis ne jamono ji dafa toll moment bi nga xamante ni euh, mën nañ ne boroom xam-xam yi wala ñi nga xamante ni génnee nañ ci daara yi li nga xamante ne mooy mooy la ñuy tuddee tafsirul Quran farataal lañ ko bu bëri da gis koo xamante ni dafay nekk ci daara yàgg fa yenn yàgg yi wala moom bindul kaamil wala mokkalu alxuraan nga gis ko mu nekk si benn jàkka wala mu nekk si benn koñ di waaraate di wax ne man daara laa génne di tafsir alxuraan ci ci loo xamante ni da leen ne kii sax maîtriser wu ko est ce que ñooñu tamit nekkuñ ñoo xamante ne di dem nañ te bay yàqal boroom xam-xam yi nga xamante ni ñoom daanañ sonn ci gëstu googu nga xamante ne daanañ ko gëstu li nga xamante ni moo di xam-xam bi ak rawatina tafsiru quran bi mu wax léegi mm-hmm. waaw xam nga tey euh, alquran euh, mënoo tëb tafsir ku te jaaroo ci matières yi tey matière yi ngay jàng pour nga mën a tafsir mooy saa yow mokkale alxuraan xam nga li ñuy wax toujours naan da nga gis koo xam ne daara ji day mokkale alxuraan dem ñibbi dañoo ne soo mokkale alxuraan dem ñibbi bis bu feeree ijji rek jàppal na yow mi mën a tari kaamil bi rawoo sa soxna parce que alxuraanu kese nga man koo tari yem ca dañuy jàpp loolu du dara lan nag mooy jumtukaay bi ab leetar la da dem jàngi ko xam-xam boobu xam-xam boobu nga jàng naaw jàng luxa jàng li nga xamante ni bii mooy matière yi ca war jàng fekk jàng euh, usul yooyu yëpp yooyu yëpp nag su dajee ci ngay mën a tafsiré kaamil bi soo jàngee jumtuwaay kaamil bu tegee rek baqara ba naasi da nga koy mën a tafsir bu yooyu dajeewul nag loolu mooy doo ko mën a tafsir eh, ndax eh, tafsir bi day ànd ak nga dégg fiq mhm. nga dégg grammaire dégg luxa dégg usul mhm. yooyu yëpp xàmmee lan mooy mut mubtaday xàmmee xabar yi yu jafe-jafe la léegi nag bu loolu man mën ngay fortaal ay baat nii di ko di ko di ko firi. dégg benn wax rek ñu naan euh, yàlla de nee na euh, kullu man alayha fan comme jigéen ñi sax dañ koy wax euh, kullu nafsin sayaqutul mawti waaw xeet yooyu bos bakk mos da nga mos mm-hmm. daal. Mm-hmm. mooy loolu dëkk bi am na fi fukki baati alxuraan yoo xam ne ñëpp a koy mokkalandoo. Mm-hmm. waaw la ko waral nag mooy da koy dégg fu ne. ci jataay bu ne. ku ne da nga koy jéem a xam yàlla nee na euh, nangam nangam su ko defee loolu moom du dara. Mm-hmm. waaye bu boobaa ku wax rek da xam kii nitu daara la wala déet. Mm-hmm. jàng na wala déet alxuraan. Mm-hmm. ki géeju na ci xam-xam wala déet. ci est-ce que maanaam liñ ko jox maîtriser na ko wala déet loolu moo waral nag jamono dox ne yàgg na. tasaaroo am na. ba ñu bëree baree bare mokkaloon nañu alxuraan. waaye mu fëtt nañ. fëtt ma mënatoo ko tari. ndax topp nga jamono ak ak ak addina. ndox mu sedd mais kilim yéeg yooyu ak jafe-jafe àddina yi nga fàtte kaamil bi. mën mm-hmm. a toog ñu bari boo leen woon koor gaa ngi nii di ñëw ne leen taril ma kaamil bi ci naafile bi dañuy daw dama ko daan def di test di woote fi ñu ne gars yi seen diw te yaa may aw wala ñëwal naafile hee déedéet ñaari suba ngi si nga tare ko ci kanam mbooloo bi xam nga tey soxna associé mën naa beeru fi tari Faatiha ak alam nasa waaye ndax bu tubaab yëpp dajee woon nga ne ko tarima alam nasa ci seen mm-hmm. problème ba. Mm-hmm. yooyu ci ci jafe mais tamit euh, euh, sëriñ daara yi nga xamante ne damaa bëgg nga dikkaat ci sëriñ daara yi bu baax baax ndax euh, boo xoolee sëriñ daara yi bu njëkk mën nga ne mën nga jël sa doom nga jox leen ko pour ñu def si ñoom xam bi war danañ ko toppatoo dinañ ko sàmm dinañ ko jox xam-xam nga xamante ni moom la soxla woo mais léegi dèjà da nga gis yenn sëriñ daara yoo xamante ni ñoom daal dañuy jàngal benn naa Njaay ba mu tolloo nu may ne xadisama wala yaasin rek benn xale bu ndaw ñu jox ko ko mu jël ko xale boobu rek bokk ko naa nga xam ne moom daanaka toppatoo gi war ci moom dëgg-dëgg dëgg du ko def leen ko war a sotti xam-xam yëpp du ko def est que loolu tamit nekkul loo xamante ni dana tardel ñi nga xamante ni ñooy sàkku xam-xam ndax am na benn xam borom xam-xam bu daan wax naan xum lil xum lil muallim wa fiihi tabjila kaan lil muallim an ñoom nga xamante ni ñoom war nañ koo jox njàngale mu dëgg-dëgg ak xam cër bi leen suñu borom subhanahu wa taala jox est ce que ñoom ñu ngi koy utiliser bu baax a baax ak ñu ngi ciy jàppale dongo yi nga xamante ni ñoom lañ leen jox waaw euh, léegi jàngale daa bari euh, réew mi ñu nekk Sénégal. Mhm. li fi nekk ci ay étranger yoo xamante ni dañoo ñëw ni ñoom ay sëriñ daara lañ jugee ci sous région bi kenn xamul ñu toll boo duggee Ndakaaru yalwaan bi ngay gis ci mbedd bi ñoom la. waxuma la waaye benn usine bu mat mu ngi ko sari dañ ñoo dégg ne Sénégal yalwaan dox na nga ñëw loué sa appartement installé jël sa fukki doom wala sa téeméeri dong jëlee leen ci yeneen réew yi ñu wër. ñu yewaale ku ci nekk boo xëyee nga indi 500 francs wala 1000 francs boo ko dajalee da ëpp sax benn ministre ab ab salaire bu <laughs> am na ñi nga xam ne ñu ëpp salaire ministre. Mm. léegi nag su dee tey tey ci ci ci jàngale gi nii. Mm. Eh, mokkal ga am des na ndax nit mokkal ñibbeegul fàtte. ak njàngu internat yi nga xamante ne tey boo xoolee léegi ñëpp dañu ubbi jóg ubbi daara internat pour di xaalis mm-hmm. waaye jàngale te yàlla tax ñun doon jàngee xam nga fan la muy kokki gi ak njaareem gi tey daa seen daara bi ci yelwaan bi la daan añ ngay sonn di jàng alquran gëm ko mu koy jàngale gëm ko du wutee dara xaalis kokki kenn du fay dara te minimum 5000 personnes da nga fekk ñoo xam ne ay ndongo kenn fayul dërëm di eh, Arabie Saoudite di leen nga dem njaarim nga fekk ñaar téeméeri ndongo ci daara te kenn du fay dërëm seen daara bi di yaakaar yàlla ndax ku ku ku liggéeyal suñu borom mu fay la mm. mais léegi boo dajalee fukki ni sax ku ne dag may fay vingt mille trente mille noonu njàng mi war naa bari mais barke du ci am ko defee nag moo waral euh, ku xaw a miin rek nga bàyyi ko ñibbi léegi miin alxuraan ak mokkal alxuraan ak man alxuraan lu benn ñu bëri nag miin nag man tari nii rek mokkal kese waaye xam nga lan mooy man alxuraan mooy mooy mooy point bi mujj nga xam ne yow buñ la doon xool dañ naan yow yaay kaamil bi dara tawul ci dinaa la jox benn secret sëñ Daara boo boo commencé émission bi sëñ Daara boo demee ci émission bi jeex nee na sëñ bi nag damaa bëgg nga taril ma arrahmaanu te bu ci boole fa bi ay dafa bokk ci li ñu daan nit ki kii kaang la wala déet damaa bëgg nga taril ma rahmaan te bu ci boole fa bi ay loolu laay tëjee émission bi yooyu da koy sekk def sekk rek yuy am na yeneen kale sëñ yu ñu boo leen ko defee ñu daanu muy sëriñ ak muy ab imaam muy keneen sëriñ sax boo mën a nga waa sëñ bi doo ma taril rahmaan te bu ci boole fa bi ay dañuy waxtaan rek bu ne laa ah loolu mënu ma nga ne ko ah sëñ bi kon war daara ja yooyu pour wan la ne alxuraan dañ grande yooyu di def lu ne waaye nag léegi ndeysaan boole yi kasaalikaan euh, kenn xamatul booy toogal ngi sax di ko wax nag alxuraan am na lu ñuy tuddee boole mu ne ngi fi maa bañ laalo la maa jëm jëm sappoo la maay tafajaru la maay saxu la maay yaxabitoo nga laan yooyu yëpp pour wan la ne saaroo ne la ca nekk ci ay baat nga mën koo ràññee léeg beneen ba boo koy wax ne dañ naan ci ay pël lay làkk dafa ànd ak yooyu dalay man jàppale ba boo doon tari ba juum rek da ngay dellu ci boole yi di tari ci bool yi ba xam ne yow baat bi nga juumee man ca bàqara wala man ca ali imran yu bëri xamatuñ ko moo tax nee naa la alxuraan ngay dem ak ciriña ngay dem ak wàlli woo ngay dem ak àgg ci yàllaa ngay dem yu bëree bari ma ngay dem ngir lan modernisation ak adduna bu bees bu ñu nekk nga xam ne coolee fi nekk rek waaye ñu bari mbooleen tëjee ci nit bii indi leen cosaanu démb danañ jël seen i gaal delluwaat ca daara ca te xam ne dara nekku mais sànq damaa dégg sa biir wax nga wax ba tudd li nga xamante ne mooy daaray kooki kooki da nga da gis bu njëkk boo ko tuddaan sax dañ naan la yii daara ji dafa metti parce que lañ fay def dafa metti jàngale ma jaar na yoon est ce que kooki bu njëkk ak jamono jii yaakaar nga ne ñooyam euh, parce que ba bañ fay nekk doon jàng alxuraan mm-hmm. ak léegi tey boo demee daara la ba gis ko nga xamante ni bii yemuñu bañ fay léegi foo xool R plus 1 R plus 2 bañ fay nekk jafe-jafe yi ab suum bi ngay reeree 365 eh, eh, jours yi soo mi ngay réer buñ sukkandu bu amee ndox. Mhm. ceebu kay cax boo xamante ne. te doo ngay léegi moom classe bi. waaw xam nga léegi loolu moom doo ngay VIP la ñuy ceebu kay boo xamante ne boo dëbbul kaan ak mhm. ci nokk si def ko ci doo ko lekk. Eh, te am nañ ko loolu tarbiya pour ëllëg foo dee mën faa nekk. Mhm. ndekki bokku ci programme bi da nga koy éliminer. jàng 4 heures 8 heures ñu soli nga delluwaat jàng yi. amul café amul mburu doo ko gis fenn. jën mën nga faa nekk atum yàlla doo ko gis fenn. ndax li ngay toogal añ reer bi doon suumi buñ suukaru mm. nga jëlum ndox di ca sot di ko jaxase nga di ko laaj mm. koo ko def yi mu dem ñibbi seen kër mm. nan laa yooyu tarbiya la ak toj sa bakkan ak not sa bakkan ëllëg foo dem mën faa nekk waaye bu fekkee jaarale woon ci moom nga mooy waral nga gis ku toog naan man du ma lekk lii du ma naan lii loolu la Sëñ Tuubaa di wax naan bëri waane koo xam ne da nga gis mu kaalaw ñàngal ci kanam askan bi naan du ma lekk ceeb bi du ma lekk lii du ma lekk lii waaye nee na bu wéetee sax lekk jox sëñ Tuubaa moo koy jàngale ci Masaalikul Jinaan pour mm-hmm. wan ne gaañ yi mm-hmm. naxaate yooyu mun na kii daal mm-hmm. yooyu yëpp pour euh, manipuler yi ak toj bopp askan bi euh, dëgg la moom euh, am na sax luñ ci joxaale exemple muy suñu wasila yooyu nga xamante ne moo di Cheikh Nassir Saliou Mbacké ndax moom daana wax naan jamono yi nga xamante ni daana jàng nekk ci daara yi nee na sëriñ daara bi dem ba di ko teg ay natt yu métti métti yoo xamante nii loolu yëpp di ko xool ba xam kii ndax muñ muñkat la wala sàkku xam-xam moo ko fi indi wala mm. loolu yëpp nag mu dem ba di koy muñ nee na sëriñ daara ba dem sax ba toog di ko tàggaat di ko wax ne yow la di nga dem ba am loo xamante nii lu àdduna bépp di wax la kon loolu xam nga tamit dèjà de am na borom xam-xam yoo xamante ni tamit dinañ am seen dongo mais tamit dinañ ko natt ci benn côté di xool kii ba xam sàkku xam-xam moo ko tax a jóg wala kii daal moom bu mettee mu mu dem bu neexee mu toog euh, ñu dikkaat tamit ci sànq li nga wax muy dongo daara yi nga xamante ni dañuy wëreelu nekk ci mbedd yi di yalwaan donte yalwaan mënul ñàkk ci dongo daara mais sëriñ daara yi nga xamante ne dañ leen di sas boo xëyee nag ma indil xaalis. nag ma indil somme bi laa bëgg boo indi xëyee nag ma indi nangam kilo ceeb boo xëyee nag ma indil lii ñu koy sas dongo daara yi léegi nag dongo daara bi nga xamante ni nag sas nga ko ko mu dem amul loolu est-ce que du ko jaral muy dem di ko wutee ji feneen loolu mënul dem ba dem yàq seen xel ba xam-xam boobu ñu doon sàkk dëgg-dëgg sax du mën a dugg ci seen biir bopp waaw man euh, li ma njëkk a contre mooy yelwaan bi tey par exemple mën naa ñàkk waaye say su fekkente ni nit amul lu mu dundee foog jaar naa ci mm-hmm. foog nga dem yelwaan yi loo dundee loo lekk jurbel gi yelwaan naa fi mm-hmm. kooki amutoon yelwaan mais euh, foofu xam nga rek ñaari ma fii du benn mais li ñu njëkk a contre xam nga lan la mm-hmm. Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans ba nga ko dalee dégg ba nga juddoo ba nëgët yaa ngi koy dégg man dama naan quatre ci jàngale alxuraan ak daara xam nga état bi am na ci responsabilité ndax da dégg ñu la 40 pour cent ci budget bi génnee nañ ko waa loolu bu ñu ko génnee est-ce que waruñ ko séddale ñun dañuy fay impôt di fay patente di fay lu nekk mais euh, boo xoolee 40 pour cent yi ñu génnee ci budget bi dañ koy yóbbu ci école française bàyyi alxuraan bàyyi daara leneen yéen bokku leen ci réew mi loolu nag xam nga mooy lan mooy séddale bu àndut ak ñàkk ak dictature ak réew moo xamante ni moomuñ seen bopp 40 pour cent yi ñu jël ci budget bi ñu dem jox ko ñi nga xam ne mooy école française bi te chaque jour ñu ngi ci ay grève ne ñoom seen dara doyul. Mm-hmm. soo rombee buntu université. étudiants yëpp lay génn la may ma lu ma añee. Mm-hmm. dama fay jaar toujours dama koy joxe may ma lu ma añee may ma lu ma ndékkee may ma lu ma reere mm-hmm. jox ay 1000 francs ay 2000 francs fii moom ana xaalis bi ñu dugal ci ci ci université bi daara yi nag 15 amuñu ko loolu bokk na ci li ma gën a naqari ba ma toogee gis ab nit ku ne nitu diine la rek moo xam ci gàmmam la nekk. moo xam ci journée culturelle mbaa màggal mu téye micro di wax te tudd ko laa ne kii de du ñu tudd daara te liggéeyul lu diine laxdar yi day tuddee liñ naan al aklu bi diin l'islam koy da koy dundal boo ko jàngee ba pare mm-hmm. mais bu ko dundee yow jàngal islam ba xam ko oo nit ñi ba ñu ñëw mm-hmm. nga di leen gëmloo sa bopp ñu lay jox ngir alxuraan ji nga jàng mm-hmm. ak lislaam ñi nga di leen yi ñuy jox sa poos li ñu yor seen poos ñu di la ko jox te yow diine ji liggéeyaloo ko dara loolu war suñu borom la war yonent bi alayhi koo paase. te ba pare réew mi nga nekk état bi la jiite mënoo leen fëgg sax ci sab cérémonie na leen waaw budget bi ngeen di joxe dimbale leen ñu am ci 5 pour cent bu fekkee mënoo koo tudd toog di wax ak cëriñ bàyyiwu la fa. waaye yow am naxaatekat bu mag nga gëmoo lislaam gëmoo diine ndax boo ko gëmoon ne état état baa ngi toj ci cérémonie officielle bi te mënoo wax ne leen 40 pour cent yi nga xam ne mooy dem ci budget bi may leen ñu ci dara ba 10 pour 10 pour cent pour cent. mais c'est rare nga gis ko koy def man ngaa toog fukki at yàlla benn waay ngay gis kuy woote ni ci diine la bokk mu xaw ko tudd tuuti laa ko mais cérémonie officielle yi gën a ngand ci réew mi ñu nekk duñ ko tudd dañ ne ñoom ay nit diine leen daara moo leen far ay ñi trahir nañ daara wax dëgg yàlla. Euh, jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Sall ci leeral yu am solo yooyu xanaa nga ñëw rek ci sa kàddu yu mujj ndax dafa mel ni li ñu ci waxtu moom jeex na sa kàddu yu mujj lan ngay dénk askan bi lan ngay dénk sëriñ daara yi lan ngay dénk taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci biir daara yi tamit di ci sonn di sàkku xam-xam lan nga leen di dénk. yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy xayrukum man ta'allama al-qur'ana ki gën ci mbindeef yëpp mooy ki nga xam ne ma nga toog jàngal islam ba xam nga di ko jàngale waxuñu alxuraan kese jàngal islam di ko jàngale mm-hmm. alxuraan ci biir xam-xam ci biir diine ci biir lépp ci biir ndax li an yahdiyaka Allahu bika rajulan dañ ne xayrun laka mina dunya wa ma fiha nga orienté benn nit ba mu jub tegu ci siraatal mustaqim moo gën àddina ak li ci biiram mm-hmm. yow bu nit ñi dee wuti alal demal wuti nit ñi sàkku ji xam-xam néew delloo ko ci nit ñi mm-hmm. mu ne loolu soo ko defee moo gën àddina ak li ci biiram mu mm-hmm. xam ne ku leen taral yàlla teral la tàbbale aljanna ku leen toroxal tabal la sabar ala man akramahum faqad akramahu Allah waaye wa man ahaanahum faqad ahaanahu Allah wa adxalahu naar loolu nag boo ko xamee alxuraan nekk ci yow képp dala war a doy léegi nag su ko defee li ñu mooy kuy jàngal alxuraan daal nga fexe ba wax dëgg yàlla mokkal koo xam lan mooy kaamil bi man ko tafsir jàng xam-xam soo ko defee génn nga ci réer àddina moom kenn du la nax kenn du la war nañ leen mën jàppale parce que nag gis nga réewum Sénégal buñ toogee ba nëgë ni ñu nekk ci jàmm tàkkut alxuraan ji ñu fi jàngale la bu doonutoon ak alxuraan bi ñuy jàngale ci réew mi ak lislaam yi ñuy jàngale ci réew mi ak sëñ daara yi toog di jàngale alxuraan ñuy bindi kaamil réew mi tàkk na bu yàgg bala moo raw Mali ak Libéria gee ngay dégg waaye nag heureusement te bëri waa na foo si ne yaakaar ne daraa nga fa jàppal ne ñëpp ki nga xam ne xëy na cinq heures lu matin di jàngale ba huit heures continuer jàngale ba deux heures pause suuti jàngale ba dix-sept ah lu fa ba looy wër ci mbaax boo demee fekk ko fa bu la ñaanalee mu dal waaye nag bu la dañuy wax boo euh, ku la gën a jaxasoo état dàq lekk seen xaalis dàq dugg ci seen avion yi dàq yëpp seen passeport diplomate dàq dund ci ñoom jàppal ne bu la ñaanelee dara du la dal parce que dara nekkatu fa nag waaye l'islam di dëgg fekk ko ca daara ja fekk ko ca matt ma ñuy taal ca taalu jàngu wax xale yi bi ci jàng leer boobu di dugg ci seen dënn di dugg ci seen bët ñooñu luñ la ñaanal mu dal la ñooñu ku ñuy jàppale ñooñu la ñu war a jàppale waaye am maa ñeneen seetaan nañ leen lool ñu ci tumuraanke goo xam ne foo ko natt ci àddina passé na ko muy Sénégal muy fi ne waaye Sénégal gii daaraa bi gën a tuumaranke daaraa fi gën a néew doole te daaraa defar ñëpp léegi nag daa am ñu génn ba pare trahir war leen jàppale wuñ daara nekk ci seen bopp waaye boo xalaatee démb loo am mën ko delloowaat ci daara delloowaat ko ci alxuraan delloowaat ko ci xale yi mm-hmm. état bi am na ci responsabilité ñu leen di ñaan ñoom ñu xam ne nitu daara yi ay doomu réew mi leen mm-hmm. dañuy fay impôt di fay ñu jàppale leen parce que nag loo fi def ëllëg dañ koy nettali almaaru hadiisun ba'd fa kun hadiisan hasanan li man waxaa ëllëg dañuy nettali li nga fi defoon kon defi lu rafet ëllëg yàlla fay la tàbbala aljanna ndax euh, alxuraan boobu ku ko mokkal suuf du la lekk te ëllëg sëñ Tuubaa wax na ne da nga ràmb juróom-ñaar fukki nit ci saw askan ak ak yeneen loolu jar na jàngi mhm. moo fi nekk loolu daal laa ne woon naa euh, ngi sant bu baax di ko gërëm mu nekkoon suñu ganu tey ci suñu premier numéro ci gëstu diine ji ñi ngay sant bu baax di la gërëm di sant tamit la gërëm tamit ci yombalal gi nga xamante ne yombalal ñu ko invitation bi di la ci sant bu baax di la gërëm suñu thème nekkoon lan moo cosaanu jàngaleem daara bu njëkk ak naka lañ daan def jàngale loolu moom la moo nekkoon tamit tey suñu Cheikh Sall nekk tamit collectif des imams di yëngu tamit ci lépp loo xam ne jëm ci wàllu jàng ak jàngale di xeex tamit lépp loo xam ne jëm ci wàllu l'islam ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant képp ki nga xamante ne yaa ngi bàyyi xel abonné seen site internet bi di 24 actu di sant bu baax El Hadj Ousseynou Ndiaye Serigne Saliou Cheikhouna Ndiaye di sant Khady Niang mi nga xamante mooy jàpp ci montage bi ñu ngi sant képp nga xamante yaa ngi suivre euh, seen site internet bi di 24 actu point com rawatina seen émission bi di gëstu diine ji mbokk yi ñu ngi leen jox di di daje ci yeneen jotaay mbokk yi jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. برب قهار قاد maa